waaw nañ ko respecté nañ ko nag bu baax quoi en tout cas ñun taxaw nañ pour que nit ñi respecté ko ku si génn jàpp nañ la téye la waaw ku si génn police ak gendarmerie jàpp nañ la téye la vraiment tamit liñ si remarqué mooy bon nit ñi ka xaw respecté nañ ko on peut dire respecté nañ ko vraiment voilà bon également même bu dul couvre rek su rek circulation interurbaine bi tamit ah ñu ngi veillé vraiment à ce que nit ñi respecté ko tey ku xëy génn su amul autorisation spéciale et autorisation spéciale tam mun naa la wax nag nañ ko bañ ko joxe nu ñu nee nit ñi voilà ku si amul autorisation spéciale dafa du génn loo tey. force de l'ordre seen bopp ñoo ko wax et je man sama bopp rek eh, depuis démb si guddi ñu may am ay intervention jàpp nañ ñi fii tee nañu fële je le dis que man mënuma si intervenir parce que mënuma wax ay nit def leen mesure bi jël leen mesure bi ba pare dellu saat naan leen ko bàyyi leen ko déedéet boo léegi bu ko bàyyee totalement man la. donc vraiment et muy force de l'ordre di colonel gendarmerie commandant de légion bi moom su fam gërëm na préfet yi ak sous préfet yi autorité administration générale si li xam ne vraiment tey nañ seen loxo téye seen kàddu bañ a intervenir si liggéey bi xam ne policiers ak gendarme yi ñu ngi koy def parce que mbir mi mooy foog marché yi d'abord ñu leen di nettoyer régulièrement a mënatuñ continuer daal comme ni mu nekkee woon foog ñu leen nettoyer régulièrement bëgguñ ñu taw ba ay 19 heures ñu paraparax yi di génn bi donc li ñu bëgg mooy ay quatre heures yu mel noonu ñu arrêté comme sa ñu am temps nettoyer marché bi balaa 18 heures ñëpp dem ñibbi vraiment xam ne kenn dafa nekk di fi indil yeneen jafe-jafe. waaw région bi bëri na cas comme ni nga ko waxee noonu et surtout li si gën a kii parfois mooy ay cas yoo xam ne cas communautaire la donc mënuñu moo boobu li mooy que xamuñ kan la exactement moo fi indi feebar wala si kan la nekk fi mu ne nii donc vraiment bu région yëpp di di di di téye di seere ñun war nañ gën a jàpp. opp na 15 ba xam nga nag day évoluer quoi chaque jour mu am ay cas yu bees normalement kii xam nga déjà euh, Mbour am na fa am na département Thiès également donc euh, cas yi dañuy évoluer donc disons plus de 15 actuellement quand même romb na waaw waaw loolu waaw moom mooy cas contact yi loolu mooy cas contact yi bon mais xam ne ñoom tam ñu ngi si jël ay dispositions yi si très rapidement dinañ leen confiner ñoom ñëpp vraiment si ay hôtel waaw non amul jafe-jafe <laughs> confinement bi ñu ngi koy defee ni mu waree waaw confinement ni ñu koy defee ni mu waree jusqu'à présent ni ñu ko njëkk mun commencé léegi phase ni nouvelle phase bi xam ne moom le président de la république indiqué tamit nañ leen confiner dans les hôtels tamit dañ siy jàll. xool nañ leen commencé nañ sénti nañ commencé séddale ay réquisition pour que ñu mën a tëj nit ñi si hôtel yi. waaw parce que du ñuy déplacé ay nit si département département ku nekk fi nga nekk localité bi nga nekk foofu lañ lay confiné voilà ñi nekk Mbour Mbour lañ leen di confiné ñi nekk Thiès ci région ci biir commune de Thiès.